asalaamualeykum mbokk internet yi di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen ñaanal jàmm et puis euh, tout en espérant que vous avez passé une très bonne nuit et puis vous commencez une très bonne journée Babacar. Mm-hmm, Ramatoulaye. tey daal damay ñëw rek song la. <laughs> bon ah man de ba ma. songee tey je suis dañ ma tegal chaise ñu ne ma toogal nga wax nga def lu la neex daal. waaw man de songu de boo songu de mën naa contre attaque de. xanaa waaw. baax na daal ma bàyyi la maa ngi lay nuyu encore fa fois yow mi ma mhm. toogal. Mhm. di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ki nga xam ne moom mooy ne si caméra bi muy Mansour waaye tamit di nuyu ñuy seetaan. di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. Mhm. di wax que ni daal ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah am na solo du nuyu ñoom Habib mhm. euh, ñoom Mansour ak ñoom Pao Soumane Maya sama doom ndey bi fàttewuma mhm. ko. mu <laughs> ngi noonu di nuyu ñëpp daal. et puis euh, di leen ñaanal jàmm bu baax a baax su ko defee ñu daal di dem rek seetaan loolu nga xamante ne mooy yëglekaay dikkaat ci plateau bi. Mhm. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mardi 7 décembre 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglekaay yi. sunu làmb la ñuy xëy doo ko yëglikaay bi di sunu làmb nag tey xëta mu njëkk moom la xëy gën caa fes mooy coow li nga xam ne nii moo lëmbe làmb ji muy diggante set ak Papa Sow combat ba nga xam ne askan waa ko doon xaar rawatina ñëwul ca arène nationale dagg seen seeni ay billet di seetaan ak ña jëndoon seen ay code te combat ba dem ba bëre des agression tax combat ba yëggul wala xeex ba mbër ma di Papa Sow ñu gaañ ko gaañ-gaañ boo xam ne metti na lool yëglikaay bi nag ñëw na tey diñu xam ne daal profondeur maanaam xóotaayu gaañu gaañu ba yegg na ci cinq centimètres centimètres yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu mu mel ni ki nag mbir moom a tax na kii di Papa Sow moom porte plainte daal ne na da koy def parce que nag mbir mi maanaam desu ko bàyyee noonu ndax daa daa jàpp moom papa ne ñoom du ñu ay mala maanaam ay nit lañ yoo xam ne yu nite lañu kon nag képp koo xam ne jëf nga jëfi mala moom jëmale ko ci seen kaw ñoom danañ la wan ne daa war a nite loolu du sama ay wax Papa Sow moo xëy wax ko fa nga xam ne moom moo di sunu làmb yemu ca nee na combat boo xam ne préparé na ko ñaari at yu tegal ay weer nee na mu ñëw tey mujj nii daal nee na lu ko naqaree nii masta am ci carrière làmbam mu mel ni nag. coow loolu boo bëggee dégg dëgg dakk moom defagu ko ndax nag CNG ba ginnaaw ba coow lu amee ba pare waa CNG nag léegi ñoo ca des ak seen ay décision yoo xam ne fas nañ ko yéenee jël décision nag bokk na ci yéen njëkk a jël mooy woo ña nga xam ne ni ñoom ñoo doon bëre muy Papa Sow ak seen CNG bi daf leen a convoqué yemuñu ca Franc Gora Sock rëg-rëg itam bokk na ca ñoo xam ne ni daal CNG ba convoqué nañ leen maanaam daal woo nañ leen ñu war a wuyu ji yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ne ki noonu kon daal mercredi suba ji daal ñoom ñooñu ñépp danañu wuyu ji ca la nga xam ne ni nag mooy wooteem CNG ba ndax mbir fi nekk ni nag la olof di wax lopp tuuru loolu moo ca am moo tax Balla Diouf daal di koo xam ne tamit entraîneur la ci Papa Sow moom la mu gis nee na boo bëggee dëgg-dëgg daal ay solution la ñu war a wut maanaam ay solution yoo xam ne lii moom day dak du jànjee ko ma jiite amateur ne ko bal solution bi benn la maanaam arène bi la ñu war a tëj dal di ko defaraat loolu mooy gis-gisu du jànjee ko mel ni kon daal coow loolu fi mu nekk nii mu ngi ne tey ci yëgle kaay yi ba tey nu continuer mbir moo xam ne tamit combat boo xam ne tamit bu bëri coow la léegi nag leer na yëgle kaay bii sunu làmb ne na Modou moom officialisé nañ ko démb fa nga xam ne nii nag moom moo di ca euh, CNG ba kon combat bi le 13 mars lay am léegi nag ka nga xam ne nii daal moom moo di mënaat sew Ama Balde di ka nga xam ne moo di Abdou Bakhoum la mu xam ne ca sunu làmb ne na boo bëggee dégg dëgg léegi leer na ne na sama daal maanaam d' accord nañu ngir bëre le 13 mars ak ki nga xam ne moo di Modou Lo Assise mayor Modou Lo di ab menacem tontu ko ne ko nun tamit day ndegem yéen a d' accord nun ñëw njëkk a d' accord te itam yemunu ca le 25 décembre face à face ba signature contrat ba ci arène nationale maanaam Assise nee na mbërëm day teew di móotuloo dina ñëw bu soobee yàlla kon na ko ñépp xaar leneen loo xam ne mënees na koo xaar muy Auguste Mbagnick seen mi ngeen gëj a gis ci làmb ji mel na ki nag am na combat boo xam ne war na koo bëre ak mbër mu ñuy wax mbul yëglekaay bi moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi mu ngi nu xëy di nu xamal tamit maanaam ci mbirum Luc Nicolaï ak combat Modou Lo ak ka nga xam ne moo di ka nga xam ne moo di Ama Tafa Gueye daal ne na soo bëggee dégg dëgg moom ma nga xam ne nag membre la ci Luc Nicolaï en ko Moustapha Gueye daal la mu xëy xamle nee na ñaari mbër yi moom loo ci mën a dégg seen ay kase danañ ko relancer maanaam yokku ko loolu Tafa Gueye moo ko wax moom ma nga xam ne nag membre la ci Luc Nicolaï en ko waaye nag seen face à face daal ku yebu xaar ko kon le 25 décembre te à Cissé ne na mbërëm dina ñëw loolu yëglikaay bi moo xëy ñëw dina wax lu mel ni ki noonu ka nga xam ne nii nag dikkaatam maanaam wane na ca boppam moom moo di booy fay ci lit simple bi yëglikaay bi ne nag weekend bi day neex na ci moom ndax nag la yëkkati tegoon ca mbuur moo ko gañee jóge ca ca samedi mu ñëw ndakaaru lañ tegoon tamit mu daal di ko ne ko coppet yóbbu moom booy fay daal lii la def yëglikaay baa xëy ñëw dina wax lu mel ni ki noonu li nga xam ne nag moom lañ ubbee woon yëgle kaay yi muy agression bi amoon wala boog combat bu yàqu ba am arène nationale dem démb Balla Gaye numéro 2 ku ne xam ne ne ñibbisi na ci Sénégal vidéo ya ku dem fa nga xam ne moo di Lutte TV da nga ko fa fekk fa la waxee ne nag yëgle kay bay di record daal ni ko jot li Balla daal la mu xam le maanaam ñaawlu na mbir ma jàpp na ne tamit réewande itam bokk na ci tax yu mel nii di am ne na tamit agression moom agression Papa Sow bi daal Balla Gaye numéro 2 nee na ñaawlu na ko ba yàggee ca lool ndax daa jàpp ne set ak Papa Sow ñoom ñaari mbër yi waroon nañoo. bëre ñu xool fan la ndam li di mujjee loolu mooy waxi Balla ngay numéro 2 mel ni kon daal li ñëpp wax mooy dëgg lu bon kenn du ko rafetlu waaye tamit ban jógee ca làmb ja ñu ne di ne waay di wax waxi xaañ-xaañ la am ca nawetaan bu démb tëngeej moom nga la Diouf dara gënatu ko rëy maanaam ay équipe yi nawetaan yu doon football arbitre suuf le penalty te équipe ba ñu ko jox teg ko daal di koy dóor mu dugg ña ca des dàkkuuruñu xeex ba dàkk acca ñuy rayante di gaañante ba ab bakkan des ca kenn koo xam ne daal leer na ne moom ñàkk na ca bakkanam am na am na nag ñuy wax ay juróom ak i ñeent waaye li am ba des daal ñeent wala kenn ñàkk na bakkanam ñu yàq estade ba yàq kaaya taal vestiaire yàq gason ba mel ni kan daal fi mu nekk nii bu bëggee dégg dëgg réew mi moom jot na nag ah Mansour ñu nëppal ko tey nag comme yow Mouhamadul Mansour lañ la tudde boo yeboo nga ñaan ci barke man Mansour sa turandoo waaye barke bàyyi Laye ak Seydi ma nga xam ne mooy sa sëriñ ndax nag fi mu nekk nii réew mi soxla na ñaan ndax xel yi dellu si xol yi dal ñu noonu Babacar seetaan nañ loolu nga xamante ne mooy yëglekaay yi. Mhm. Euh, tey daal suñu làmb dañoo xëyee combat boobu le nga xamante ne moo fi amoon diggante Papa Sow ak euh, ko nga xamante ne mooy Siteu. Mhm. Papa Sow revient sur son agression. Mhm. Euh, la profondeur de la blessure est de cinq centimètres. et kooku di Papa Sow de nee na moom il va porter plainte. et il dit que nous ne sommes pas des animaux. waaw blessure ba de xam na ne xóot ga moom bu ñu ne cinq centimètre war na caa toll parce que tamit blessure bi daa metti ah. Mm. parce que démb bi waxoon naa la ko fii dama daa dafa euh, blessure bi mu amee ba mu jógee fi mu jëlee blessure bi ba ñëw ci sumukaaya sumukaayam mm. directement mm. man bokk naa suñu ko fa njëkk a fekk yaa ngi dégg parce que bi ñëwee fekk ko deret bi. mooy loolu. yaa ngi dégg parce bi muy génn ba di ko nit ñi di gis carrément sax. Mhm. bu fekk na gars am na lu ñu wàññi ci biir cumukaay li kon blessure bi metti na lool lool moo tax dañ koy masawaat encore une fois ci blessure boobu. Mhm. bon euh, porte plainte bi tamit am na si droit parce bu fekkee da jàpp ne dañ la agressé def la lu ñu la war a def. Mhm. te réewum droit lañ ne. da jàpp ne da nekkoon ci sa yoon am nga droit porte plainte kon am na droit moom a ma am nga droit boobu. mais li ma si li ma si yokk rek mooy dafa am loo nga xam ne nii ci benn côté parce que Papa waxtaan nañ dem téléphone. dëgg la yaa ngi dégg. Mhm. parce que ñoom ñëpp ku ci ne dañuy wax téléphone muy moom muy Siteu. Mhm. mais li am solo mooy papa euh, dama naan ci benn côté. Mhm. yaa ngi dégg xëy na yaramam tàngoon na. parce que mbër dina toll moom boo xam ne yaram bi day tàng. parce que bi muy dem boo ko xoolee xam ne kii moom Papa Sow mi nga xam mu ngay fekk këram. nekkatul Papa Sow boobu. mbërë fi nekk léegi yaram bi tàng na. Mhm. mu xuus nag di dem. Mhm. xëy na loolu mënoon na ko nag invité. ci benn côté mënoon na moytu loolu. dafa dafa réagir si moment de bien sûr mais loolu lépp erreur bi yëpp li indi loolu lépp li provoqué loolu lépp dama naan encore une fois te loolu ñu bëri wax nañ ko seen CNC kese la parce que li tax ñoom la ba lii am nii am tey ba ji xalaat tey plainte ak deret ju turoog yooyu. Mm. bu fekkonte ne ci début ba. Mm-hmm. ñoom ñëw nañ ne kat ñaari tëggkat yi. Mm. bu ñu bàyyi ba seen mbër yi teg seen cumukaay ba pare. ñu ne balaa benn géwél a samp ay ndëndam na bàyyi ba mbërëm teg cumukaayam ba xam fu cumukaayam nekk. cumukaayu kii nekk na gauche kii nekk na droite. Mm. ñu ne Jili Seck sa sa mbërëm mu nga droite demal teg fa say ndënd. Mm. Papa Sow sa dem euh, Demba Ndir mm. sa mbër mu nga góos demal teg fa say ndënd. soo ko defee Papa Sow buy dem lu mel ne mën na ñàkk Siteu buy dem loolu du am parce que loolu moo waroon am. kon foofu dama naan. faute mën naa ne daf ci am na nga xam ne responsabilité bi yépp day dikkaat au niveau du CNC bi yore làmb ji encore une fois bés yu jëm comme ni ko ñëpp waxee bés yu mag la yaa ngi dégg mm. bés yooyu nag buñ ci jëmee il fallait que yow mi nga xam ne yow yaay kilifa gi gérer nga àttan mbir mi am autour mën ko gérer pour mën a defar bés boobu mm. mais bu yu mel ne parce que saaru faay yooyu ngay xeeb noonu parce que discussion bi dafa teel a am avant ñuy tëggal mbër yi. laa gis bàyyi dem ba vidéo bi mu dugg na Equivox boo ko seetaanee ñoom ñaar ñu xëccoo foofu ci ay wax waxtaan en tant que géwél ak géwél yaa ngi dégg. Mhm. loola kon mënoon nañ ko teel a invité mais malheureusement ba lii mujj ci am am ci. Mhm. yaa ngi dégg te mhm. lii kenn xaaru ko woon. kenn xaaru ko woon nit ñi dañ doon xaar ñu bëri parce que encore une fois ñiy fay seen ay billets. ñëw estat yaa ngi dégg. mais Babacar ñi jënd seen ay am la. waaw waaw lu war a am xam nga xam nga mhm. xam nga loolu suñu terme la ñun Sénégalais mais ramatulaay am na loo xam ne mën nañ koy moytu. Ah waaw nu waaw parce que olof ne na fagaru moo gën faju nañuy fagaru. loolu dëgg la yow ramatulaay bu ñu la tegee fii nga war a def journal war a def sa idée. Mm. defe naa ne doo ñëw wax li la fi neex dem il fallait da nga koy organiser. dëgg la wax lii wax si bi wax si bi mm-hmm. Mm-hmm. kon maanaam ki nga xam ne dañu la dénk ay mbir bu ñu la ko li ñu la jox la ay xalaat kat ngay waxtaan da nga war yow di prévenir balaa mbir di yegg si mm-hmm. mais nag boo xasee daal ba dal ah en tant que jullit ñu dañ naan yàlla la yaa yàllaa ko dogal waaye tamit yàlla am na loo xam ne bu amoon avocat. Mm. wala ku koy dóoree. Mm. lu bari ñu koy jiiñ desatu ko ko jiiñ am na loo xam ne ñun suñuy responsabilité la. yoonam moom newu ci ndax jox na mu xel jox na nuy xalaat mm-hmm. wan nu aw yoon mm-hmm. kon xam nañ li baax xam nañ li bon xam nañ li war a am kon suñu dundu noo koy organiser suñu àddina pour mu mën a jag waaw ndax nag doo xëy sa bii bii li ci war a dem nga ne na damay xaar yàlla non boo xëyee doo defar sa ndékki ut loo lekk. <laughs> loolu su ma xëyee loolu laa njëkkee. Eh, voilà <laughs> <laughs> ah, kon kay jeex kon jeex boo ko amul di ko wuti pour lekk. Babacar mi ngi ñëw nu jàdd jàll euh, très rapidement si mhm. si on reste toujours sur le même sujet mhm. euh, scène de violence blessure grave de Papa Sow mhm. am na juróomi mbër ñoo xamante ne convoqué nañ leen kooku di Siteu Papa Sow Franc góor Sock et Reug Reug waaw parce que loolu CNG ba tey xam naa ne comme moom moo yore làmba ji. moo leen woolu pour suba pour déglu leen mooy si tamit waroon a bëri ak papa mi waroon a bëri ñoom ñaari mbëri ak ñi leen nekkoon seen i ànd. parce mhm. que Gora Sock ak Franc ñoom ñoo àndoon ak papa indi ko. Reug Reug nag mën naa ne indiwul Reug euh, euh, Siteu. Mhm. waaye bi làmb ji demee ba déngoot ñëw na ci biir stade bi ànd ak dem ci cumukaay Siteu. Mhm. génn Siteu ñu ànd daw fecc. Mm. yaa ngi dégg def benn tour yëngal làmb ji làmb ji yëngu duñu delluwaat mm. rëg rëg su ma jumul foofu la jaare ñibbi yaakaar naa mm. parce que gisaatuma ko ci stade bi parce que maa ngi koy gis bi mu pare mu ngi daw ni du romb ñun presse ba dugg ci beneen tunnel bi pour pour bi ma yaakaar kon dafa demoon ñibbi mais ñi leen woo nag na suba li olof naan ko la woo mm-hmm. dina la jox wala mu wax la mm-hmm. xëy na bu ñu defee demee au niveau du CNG suba lañ leen woowee dinañ na solo mais convocation bi aussi am na Euh, dafa am solo Babacar. parce que ci convocation boobu ci lañ mën a xamee li xew. ci lañ mën a xamee li xew. bu fekkee dañu jël ay sanctions mm-hmm. ci lañ ko mën a jëlee. Mm-hmm. il fallait que ñu xam li causé problème bi. Mm-hmm. parce que ki nga xam ne nii mooy père naan seet nga xam ne nag buy am moom moo ci ëpp information ndax moom la CNG reconnaître parce que CNC. Euh, euh, manager la ñu reconnaître moom lañ ñu jox licence. Mhm. promoteur ak mbër. ok mbër mi nag ki dox digganteem ak CNC bi mooy le manager. moo tax bi bi ma déggee rumeur boobu ma woo Père Max. Mm. Père Max laaj ko ci loolu Père Max ne ma loolu de Babacar amul. Mhm. waaw parce que du lu yegsi ci man man daal li nekk ci man li ma jot mooy. Mhm. convocation bu ñu ma def suba man ak sama mbër ba ci tëggkat bi loolu Père wax na ma ko démb. waaw. voilà am na solo Babacar ñi ñi dem nañ sax ba naan euh, sauvegardons l'arène nationale kooku di Balla Diouf aussi ancien lutteur s'est prononcé nee na on doit trouver des solutions. waaw wax na dëgg. Mhm. nañu wut ay solution waaye solution yi daal benn bi pour man. Mm. am nañ arène lañ doon jooy tabaxal nañ nu arène. Mm. mais arène bi ay nit lañ ko tabaxal. nit ña fay dem ñoo la nite an après. ay nit lañ ko tabaxal. Mm. yaa ngi dégg. Mhm. tabax mais léegi la mooy solution bi. solution bi kay mooy na ñu jéem a yaru. su fekkee ñun ñi nga xamante ne ñun lañ ko defaral sàmmuñu ko kan moo koy. sàmm ku koy sàmm kon solution bi mooy lan. yar la ñu war a am. encore une mm-hmm. fois am yar. éducation mm-hmm. mooy problème bi. encore une fois ñi ñu dénk ñu yore ay ndombo. Mm-hmm. lañ leen di dénk ñu jël seen ay responsabilité jël responsabilité mooy mbir mi tey lii maanaam ñëw nañ fii ah lii nga war a def. yow da nga koy def. Mm. ci jamono bi nga ko waree def. Mm. defoo ko ay sanction fekk la ci. dëgg la ak qui que ce soit. Mm. bu ñu ko commencé ca kaw ca pale ba. Mm-hmm. ba ci ñun ñii ci suuf. ñëppay yem ah ñëppay réglé bu fekkee lu ñu ñu bàyyi mu jàll kay après. mooy loolu c'est ça au fait Sénégal aussi Babacar boo seetloo dañoo bëri maslaha. waaw comprendre nga nit day def dara ñu naan voilà euh, maslaha bee bëri daal day ñëw ba nit ñi nag dañ ci abusé. xam ma maslaa baax na lool. Mm-hmm. lu baax la. Mm-hmm. waaye dafa am moment yoo xam ne. du moment yu ñuy maslaha. dañ ciy wax nit ki dëgg. kër bu defee dégâts dañ ko ne da ngaa def dégâts te lii waroo koo def. dëgg la na reconnaître ne def na dégâts. Mhm. ñu jubbanti ko pour bu ëllëgee. Mhm. jubbanti nag nekkul jël yóbbu ca kaso ba kese mooy jubbanti nit. déedéet nit ki dafa am loo koy wax am nooy doxale ak moom. bu dee moom it bu dee gor la laa wax de. Mhm. balaa mu yegg foofa moom mu xam ne def na erreur pour en ëllëg loolu mu moytoo. mu moytoo waaw. dëgg la mhm. euh, Babacar ñu daal di jàll rek ci combat boobu nga xamante ne c'est tant attendu attendu. Mhm. kooku di Ama Baldé et Modou Lo daa mel ni combat bi de taxawal nañ ko pour le 13 mars. yàlla nañ ko fekkale tal ko. amiin combat bu yàggu yoon rahmatulahi. Mhm. le roi des arènes Ama Modou Lo. Mm. ak la euh, ak ki nga xam ne ni moom mooy Ama sa lu bu ndaw. du yomb de. xam nga loolu daan nekk combat boo xam ne xaw ma loolu boobu damay dem. non foofa. damay ah. dem stade. léegi dama la ma gis bërki dem ca arène nationale ak CETA. ak ah. Papa Sow. Ah. su ma la nee yóbbu ma doo ma yóbbu. non ah, loolu voilà voilà voilà ça devient dangereux. waaw parce que gis nga man mii nga xamante ne ah amateur lamb laa. ma war a dem toog non mën nga ñëw sax non di nga ñëw sax xam naa ne jàmm ci am. xam naa ne fii bu nee damay dem gars yi dañ may téye dañ may ne non rama doo dem. parce que xam nga ak danger bi dinaa la yóbbu teg la ca loose. mais ça doit pas être comme ça. bien sûr en fait tey jii nii man su ma jógee ba am envie. Euh, dem seetaan di combat ça doit être quelque chose loo xamante ne je serai impatiente. non daa war a am mais du moment où ma naan bëgg naa dem arène rek ku nekk di ma découragé di ma ne arène wóorul lii léeg euh, loolu waru fee am. Babacar waaw parce que li tax ma ñu lay dëkk xam nga ñu mhm. tey. ñun ñuy dem mhm. ci làmb ji. Mhm. des fois dañuy gis ay mbir yoo xam ne nii rafetlu wuñ ko. dëgg la dañ dafa ñaaw donte nag làmb xëy na moom comme li may wax dafa weex donc. Mm. maanaam moom bu ñu defee benn bu ndaw rek. Mm. gars yi amplifié ko waaye encore une fois du tere la ñuy def ñu ñu di ko gis dañ koy ñaawlu. Mm. nit ki nga ne ko xaw ma sax rafetu du wax ju rafet. parce que violence du sax ay dóore kese verbal bi moo gën a dangereux. doo xam hmm. nit ki manqué ko respect. yooyu nañ ko invité. mi ngi noonu euh, kooku di Abdou Bakhoum a euh, réagi par rapport ak combat wu Modou Lo ak euh, Ama Baldé mooy manager. Ama Baldé hmm. nous sommes d'accord pour lutter le mars. waaw loolu de moo ci des comme vrai officialisé nañ ko. moom daal pare na au au bi rek a fi des te combat bi yàgg na. <laughs> yàlla nañ ko fekk euh, aussi nee na daal du ko bàyyee kàddu gi moom it prononcé wu na ah. Mhm. nee na Modou Lo sera à l'arène le 25 décembre. waaw le 25 décembre mooy jiitu balaa combat bi mooy face à bi war a am. ci ñoom ñaari mbër yi. Mhm. le 25 décembre defe naa ne loolu. Mhm. bis bu am solo la kon defe naa la le 25 décembre dina yëngutu lool. parce que lu waxu euh, euh, euh, face à face bi dafa am lu ko lu ko jiitu ci kom ndax bàyyi mu ñu na xoyantaan ñoo war a bëri bés boobu. combat Sénégambia combat bu nar a neex Jamaïcain tëggu ko. Mm. defe naa bu ca Modou Lo ak Ama Baldé war a def face à nag. Mm. kon arène nationale la 25 xaaral na dina yëngutu lool. face à face bi tête à tête lay doon. bien sûr face à kay comme nii ma toogee man ak yow. xanaa waaw. loolu du yomb jàkkaarloo moo du wax ama wax. ok <laughs> ñu xam. ma ne ko loolu du yomb. Mhm. mi ngi noonu ñu daal di jàll ci journée boobu nga xamante ne mooy euh, record. Mhm. de retour de France euh, de retour de France hier Balla Gaye de déplore l' agression de Papa Sow. waaw parce que démb la jógee Paris la France Balla. Mm. Hmm, ñu koy nuyu di nuyu adversaire am Bombardier. Mm. waaw ñoom ñaar ñëpp ay borom baax la ñu ngi leen di jaar di jaar mbir yëpp bon démb la ñibbisi mais bu ñu bisee nag gis nañ ko ci caméra wu microlite TV fa la waxee. ñaawlu agression bi moom la ñu suñu record tey xëy indilaat ñu ko. Ah, ci xalima Assane Waalo Gaye ñu koy nuyu moom itam di suñu waay muy loo nga xam ne defe naa ne Balla itam ah loolu en tant que moom porteur de voix ak tey fi mu toll ci réew mi. Mm. defe naa ne loolu mu wax. mooy li ñëpp wax ah. Mm, lu ñaaw la lu gën rafetlu wut la moom itam vraiment xam ne du ko rafetlu. parce que moom mi xam nañ ko bu baax a baax. mbër la boo xam ne nii mooy solo. ak waxu yeneen mbër yeneen ah. mbër waaw. parce que itam nekk loo xam ne dina ko rafetlu. Mhm. lu rafet mhm. waaw. Mhm. waaw kon loolu daal euh, baal waxam boobu am am na solo lool boo doonee koo xamante ne bëri ay soppe. ay ay supporters. c'est intéressant pour nga prononcer aussi genre sujet budget mhm. li nii day tax ba say soppee say supporter dinañ delloo si waat. seen xel ba yow bis boo aayee rek ñoom mhm. dinañ éviter genre seen yi. parce que moom day bëri le premier janvier incha allah rabbi moom ak Bombardier te defe naa ne mhm. moom la mu bëgg mooy. arbitre soufflé moom ak Bombardier ñoom ñaar loolu lañ bëgg. bëre ñu ñu xool revanche bu fan la ko ko yóbbu. waaw moo tax euh, bon wax bi am na solo lool. ndax am na solo. Mhm. mi ngi noonu Babacar ah lu tey euh, loolu la ñu indiloon suñu mbokk internet yi. ma mhm. bàyyi la nga tàggatoo. kontaan ci yow. di la ñaanal jàmm. <laughs> di ko ñaanal ñuy seetaan di balu ñëpp a ah. mhm. di ma saw tamit. waa nawetaan rawatina sax wax football bi parce que démb la am tëngéej ñaaw na lool. ñaaw na mais bon. ñaaw na Babacar temps yi dëkk bi yëngu na dafa bëri violence. ña ca faatu ñi xol yi nañ rafetal xol yi Babacar. ka ca faatu yal na ko yàlla yërëm. amiin yaa ngi dégg. ak dellu si xel yi nga dem nawetaan ba ñu ngay wax làmb ja jeexagul nawetaan ba mhm. ndax bit bu ñu dugal doy na waar daal doy na waar kontaan ci yow kon naan di mi ngi noonu mu ngi noonu ah tey loolu lañ leen euh, indiloon et puis euh, on vous donne rendez-vous allah même heure et passez une bonne journée.